Mamadou Lamine laa tudd euh, nekk président du mouvement ànd ànd mooy alliance nationale pour le développement l'équité et la solidarité. dañuy sant yàlla bu baax julli si yanant bi sang-sang yi euh, di ñaanal Cheikh Mountakha mi nu fekk si yàlla yàggal ko fi yàlla dolli ko wér moom ak ñi mu bokkal Cheikhul Khadim yëpp. Euh, di leen sant yéen journalistes yi mais di sant aussi ñi ma àndal délégation bi ma àndal jóge xombol euh, tey nag euh, lii waral ñu ñëw fii mooy ñëw ziare si sunu waajur sunu kilifa waaye aussi ñëw fas yéene ànd ak moom ci màggalu maamam gi nga xamante ni moom la yàlla dogal tey jii mu tax tooge toogaayu maamam bi ah ñun nag yàlla dogal ñu ay doom di ay taalibe muy sunu wasila ñu yàgg ko fee fekk lu ñuy dugg mu xam ko lu ñuy def waxtaan seeg moom mu boole noo ko njabootam kon mënu lu dul bu fekkee dañoo jub ci màggal gi ah laataa ñuy ñëw di màggal si comme ni ko ñëpp di defee moo ñu ñëw xool kon moom ñaanal ko yàlla waaye ànd ak moom ak yi ganam fa yéene ko tertool ay ganam jàppale ko ci bis bi incha allah loolu daal mooy tànk yi ah ñaari cër la benn bi mooy waajur la bàyyi la maam la kilifa la ba si des mooy xalif Serigne Touba fii ci suuf ku woote màggalu Serigne Touba nag ngay xalifaam màggal goo xamante ni lu mat ñeenti doomi millions yi doomi aadama wala juróom dina ko fi toll kon yaakaar naa ni kooku ku am yéenee ñëw jàppale la warul ñàkk loo ko mën a jàppale waaw ñun nag ay ndongo lañu di doom li nu mën daal lépp lu nu mën dinañ ko def daal ndax gan ñi màggalam gi mucc ayib incha allah. du woon ay teggin nag daanaka ci bis bu mel nii man daanaka Touba wala muy feneen. ci këri diine yi euh, bëriwul lu ma fay dem jomb naa ko sax di fa waxi politique mouvement bi politique moom dara bonu ci te sax boo dégloo baat yi nga xamante ni moom la ñu waxee mouvement bi muy solidarité wax l'équité euh, mu jëm si Sénégal wërngal képp muy à l'échelle nationale ñun jàpp nañ ni sëñ bi sax la ñuy jàppale ñun entité bi ñu yore ak ni nu fa yéenee doxee ak li nu tàmbalee dox ñun sëñ bi la ñuy jàppale ak ku mel ni moom.